léegi mais comme que danga nga ñëw en retard moom euh, toppal ci rang bi rek déedéet non coow li waxtu bi duñu ko may wax wax wax nañ ci wax wax wax nañ ko kii alors. yow dinañ la jox nuyoo non non nuyoo bi kay léegi loolu mooy nuyoo bi salaamaaleykum. mooy nuyoo bi ah, euh, la. Euh, récusation juge Sabassi état bu Sénégal euh, désisté wu na euh, ci jamono jooju Sonko. booy nuyoo rek de la faim tàmbaliwaat na ko ci en solidarité. en tout cas avec ses vaillantes sœurs patriotes arrêtées euh, lecture bi bëgg naa ñu def ko sëñ Saalum muy taxaw seetlu bi jëm ci état bu Sénégal déjà bu désisté euh, ci récusation euh, bu juge Sabassi ndax coow li bari woon na ci lool ci ba verdict bi waddee alors ban jàngat la ñu mën a def ci loolu selon vous bu ñu ko doon analyser sur le plan politique bon après sur le plan politique quoi mais euh, mbiru yoon la mbiru justice la naka nga jàngatee désistement boobu ñu nemmeeku ci euh, état euh, ci comment dirais-je état bu Sénégal par rapport ak li mu récuser juge Sabassy waaw man bi moo lire désistement bi hmm. gis naa ne l'avocat Abdou Dialy Kane hmm. avocat état bi moom joxe na les raisons pour lesquelles l'agent judiciaire de l'État s'est désisté moom dafa jàpp ne su fekkee ne procès bi am na ba pare ba nga xamante ne am na dogal bu ci jógee donc ñoom gisatuñu pertinence su dañuy récuser juge bi mhm. mais su fekkee ne loolu yoon may na ko te mu leer na ne il a une possibilité de revenir sur ça je à a mhm. bu fekkee ne loi may leen ko que ñoom auparavant ñuy def loolu donc ñoom bu ñu demee def demande de récusation du juge ba suivre benn procédure moo jàpp ne kon même après la après même le l' ordonnance du juge. ñoom mhm. war nañu war a mën a am war nañu récuser juge bi su fekkente ne am na ci lu mu tegoo te xam nga aussi bu fekkee ne da ngay récuser juge. Mhm. article 650 boobu code de procédure pénale daf la génneel neuf alinéa yoo xamante ni ci nu ñu war a mën a récuser un euh, juge. Mhm. génn na mais ci cas de figure bi nga xamante ne moo am Ziguinchor. gisuma ko ci alinéa yooyu nga xamante ne mooy les cas de récusation d'un d'un d'un juge mhm. est-ce qu'ils ne se sont pas rendu compte qu'en réalité que cette requête-là amul woon benn chance pour aboutir au niveau bien sûr de la cour d'appel mhm. que bañ aussi en de en moins de de de de dix jours parce que ils allaient vers un donc finalement ils sont désistés mhm. mais il faut donc xamoon nañu ne buñ ci tàbbee ci loolu. Ah euh, cour d'appel mënu koy ñoom suñu xamee ne su leen wóoroon ne. ñoom su leen wóoroon ne ils le droit avec eux. que leer na ne buñ ko déposé bu jàll. Hmm. ce qui dañ koy déposé hmm. parce que toute la peine qu'ils ont fournie pour dem Ziguinchor ni ñu mobiliser seen i avocats ak vraiment li xew yépp ci procès boobu ñu def seen récusation ba pare désisté wu. mais c'est parce que tout simplement xam nañ résultat bi nga xam ne moo lañ ci doon mhm. mais au même moment aussi bi ñuy désister il y a la programmation tout simplement de euh, du pourvoi en cassation. de la mhm. Mame Mbaye Niang. Mhm. cest à donc foofu boo xoolee aussi dafa mel ni bu fii mënul jàll ñoom jàpp nañ fële mën fële mën na jàll parce que c'est c'est déjà programmé. pour le pour le 26. est-ce que réellement liñ programmé le 26. mooy la cause de la euh, comment de désistement de l'AGE euh, en tout cas de l'agent judiciaire de, de mhm. l'État ça peut être une lecture mais ce qui est sûr et certain mooy ñoom seen loolu ñu déposé woon il savait dès parce que Abdou Diallo Kane li mu mooy que ñoom il ne savait même pas lien de parenté bi am entre juge boobu ak le mise en cause mooy l'adjoint au maire de Ziguinchor Sayer fay boobu mais ñoom état bi ñoo fa teg juge bi donc su fekkee ne maanaam dañuy ñëw ci juge ñoom en tout cas tous les éléments yi pour récuser un juge war nañ ko mën a am. Mm-hmm. parce que waa Pastef fi ñoom ba tey récuser nañ fi juge gars yi débouté leen. Mm-hmm. ils l'ont fait avec Mohamed Diop je crois ils l'ont fait avec Amady Diop ils l'ont fait même euh, Sonko l'avait fait avec euh, Maodo Seck mais à chaque fois dañ ñoom dañ doon dañ doon ñàkk. Mm-hmm. mais terewul même avec le, le cas Karim aussi les juges avaient récusé le le feu à euh, kii kii Grégoire donc de les gars euh, les, les avocats ont récusé des juges. Mm -hmm. donc cette fois-ci su fekkee ne ñoom dañuy dem ba au dernier moment ils certainement xam na résultat bi nga xamante ne moom la ñu parce que s'ils étaient sûrs et certains que au bout du compte que ñoom dinañ am dëgg du ñu du ñu désisté wu. Mhm. mais que l'autre lecture aussi mooy. la programmation de la Mame Mbaye Niang c'est-à-dire le pourvoi en cassation. boobu daal boobu am boobu man. <laughs> dama ci dama ci am vraiment benn jàngat parce que boo xoolee procès boobu c'est un procès fast parce que boo gisee bi ñu ko programmé première instance ak appel bi presque intervalle quinze jours la. deux décisions génn ci cest dire bi ñu génnee dans un premier temps le verdict satisfaire loon cest dire la partie civile ñoom dañu tel. def appel. Mhm. le procureur a fait appel. ñu dem appel on a corsé bon somme bi moom du varier mais on a corsé quand même la peine de sursis parce que on est passé de deux mois pour aller vers trois mois et trois mois boobu c'était suffisant parce que c'est la peine qui élimine Ousmane Sonko électoralement parlant mais comme que ñoom aussi dañu contester loolu ils sont allés en en, en cassation. Mhm. donc on attend à ce que la Cour suprême se prononce sur cela. mais lan moo tax ñoom ñu programmé ko le 26 alors que dossier en diffamation yi ma gis fii lu mu dee dee ñu bari day dem deux ba trois ans. Mhm. je donne un exemple l' affaire Télico Madiambal Diagne. Mhm. jusqu'à aujourd'hui ba léegi ñu ngi ba ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci deuxième. ñu ngi ci appel ba léegi. absolument. <coughs> alors que l' affaire Mame Mbaye Niang c' de mars dernier. Mhm. et ñu naan dañ ko vidé au mois au mois dire que jamais dans l'histoire judiciaire de ce pays musuma gis. benn dossier en diffamation bu gaaw ne ah. nag aussi ñu wax ko ñu bañ ko wax c' un dossier quand même qui a des relents parce que ba ñuy def appel bi qu' est que les gens sont dit que en réalité dinañ dem defi appel parce que Ousmane Sonko n'a pas une peine quand même l'élimine de, de, de l'élection présidentielle c'était tout simplement ça ah. parce que quelle la différence qu'il y a entre deux mois ferme deux mois de sursis et trois mois de sursis ah. pratiquement bokkul au plan politique bokkul parce que bii du ko éliminer mais bii daf koy éliminer. très bien donc weer bi ñu ci dolli ñoom doy na leen pour ñu mën a wax ne ils ont gagné leur procès. Mhm. ils se sont pourvus en cassation. maintenant man li nga xamante ne nag déjà xew na fi ça ne me donne pas en tout cas une certaine confiance aussi sur ce qui va se produire. le 26 mhm. éventuellement. mais ma jàpp ne aussi toujours en dernier ressort. Mhm. ñi nga xamante ne ñoom ñooy def loolu. je crois que bu fekkente ne ci rek la ñu tënk ko. lu mën a génn ci verdict boobu ça va satisfaire. très bien mu tombeek Sonko nekk en grève de la faim. Euh, est-ce encore une solution pour pour pour moom euh, ci muy tàbbi ci ci ci grève de la faim d'autant plus que ba mu ko njëkkee tàmbali Sëñ Saliou on a vu que ñu ci bëri euh, ci ay intervention ñaan nañ ko ko pour mu arrêter ko mais non euh, voilà euh, sur. Euh, ci ci ci wàll woowu. est-ce que est-ce que grève xiifal mën na mën na mën na doon. solution ci moom mën na faj dara. non xam nga xiifal bi en réalité c'est pas par rapport ak euh, même euh, procès yi. Mm-hmm. mais c'est surtout en guise de solidarité. Mm-hmm. aux femmes et aux détenus de Ziguinchor yi nga xam ne ils ont entamé. ñu mm-hmm. grève la faim te loolu ngir Ousmane Sonko. parce que ñu ci bëri ba ñu dem prison mën naa wax ne Ousmane Sonko moo tax ñu jàppale. parce que ils défendent son projet. ba loolu fekk leen ci. Mhm. ñu bëri aussi ba ñu demee en prison dans un premier temps bi ñu déggee ne Sonko mi ngi doon grève y' a beaucoup de détenus yoo xam ne aussi ba ñu déggee ne Sonko mi ngi doon grève ñoom dañu dem solidariser ak mhm. y a des femmes euh, au camp pénal de Liberté 6 que ñoom aussi. détention arbitraire la ñu wax les mhm. mauvaises conditions de euh, en tout cas carcérales ak yeneen infection yi am au niveau tout simplement de du lieu des lieux de détention. Mm. waa Ziguinchor aussi pratiquement ce sont les mêmes revendications. moom mi nga xam mooy seen leader mu jàpp ne ñii li ñuy def yëpp man maa tax. Mm-hmm. donc man aussi je ne peux pas. vraiment man mënu mënu je ne peux pas quand comme cela. il faut que en guise de solidarité que man aussi que je me rejoigne bien sûr au combat cest bi nga xamante moom la ñuy mm. soo ko jëlee sur cet angle là c'est très légitime c'est juste. ok mais nañu am na ñoo xam ne bëgg nañ Ousmane Sonko bëgg ko xamante ni. Mm. bëggatuñu. muy tàbbi ci affaire grève de la faim. Uh-huh. parce que y en a beaucoup qui disent que ñoom ils n'en parce que bee passé ça leur avait créé beaucoup de problèmes surtout vraiment psychologique mm-hmm. parce que dem nañ beneen sens xamante ni lu ne wax nañ ko ci ba nit ñi ñëpp tiiroon nañ ci mm-hmm. bon finalement il a cessé la sadiette mais delluwaat na ci léegi nag on ne pas quand que tout simplement les patriotes très bien Fatou Abdou bu verdict bi euh, gis nañ coow lu ci am yëpp euh, allant euh, ci déclaration bu et bu kii nu mu tuddati ji yor agent judiciaire ah agent judiciaire de l'État je <laughs> veux dire yenn ci ay baat jóg na UMS ñaawlu peut-être doxalinam